xibaar bu tiis moo dalati ci kaw askan sunu gaal rawatina foofee ca Touba Mbacke mbay sapar sapar ku ko dégg xam ne ku doon bëggal jaamu yàlla yi la waaye rawatina fii ci Sénégal ñëpp ràññee ko ci li nga xam ne mooy wàllu humour mu ci doon def liggéey bu am solo moom moomee nag moo ci bàyyeekoo tey ci ajuma bi ginnaaw ak accident bu mu def ci otom boobee noonu doon ab 406 foofee ca yoonu Daara Jolof d'après les informations moom nag dafa mbëkk ñettu élèves te élèves yooyu sax ñu ngi xam ne ñoom ñoom dañoo mujj a ñàkk seen bakkan comme ni mbay sapar sapar ñàkkee ñàkkee bakkanam mu nekk nag lu tiis a tiis a tiis di leen fàttaliku rek ne mbay ñëpp ràññee woon nañ ko ci waxtaan yi neex yi mu doon def ci TikTok Instagram waaye rek ne am naa oto bu bees ñaanal leen ma ci ku baax a baax a ma jox lii moom nag ci oto boobu la def soog tey foofee ca diwaanu Daara Jolof ak ginnaaw bu mu mbëkkee ñetti élève ci xibaar nag ñu ngi xam ne rek ne ñetti élèves yooyu noonu sax dañoo far ñàkk seen bakkan comme mbay sapar sapar ne mu ñàkkee bakkanam ci accident boobu noonu euh, par ma voix nag équipe Dakar Live ñu ngi koy jaale njaboot bi ko jaale waa Touba di ko euh, ko jaale képp koo xam ne rek jege ñaayu mbay sapar sapar moomu woon noonu ndax mbay sapar sapar ñëpp woon nañ ko euh, ca oyof ga sa reega waaye tamit ci am xorom ga lool lool goo xam ne rek saa yoo ko gisee rek li ngay njëkk gis mooy ay bëñam ca reetaan nga moom moomee nag moo fi bàyyeekoo yàlla na ko yàlla xare àjjana fi daw si dee doon naf laay na trop nag waaye nag àdduna mu ngi nii demal maa ngi ñëw mbay sapar sapar yàlla na la yàlla xare àjjana fi daw si dee doon sa naf rawatina xale yooyu nga xam ne bokk nañ ci accident bi te ñu ñàkk seen bakkan Sénégal daal mu ngi nii ces temps ci tàng na trop waaye nag sant yàlla rek te ñaan suñu borom musal ñu ci cat jërë ngeen jëf. man bëgguma tooñ wallaahi kenn sama àdduna bis maa ngi toog ci sama côté jàpp sama bopp waaye dañ may tooñ rek nit ñi dañ tooñ waaye jégal naa ñëpp ndax bëgguma ak kenn problème. lu may man wax rek baal naa la. xamoon na ma koy waxee sax. asalaamaaleykum wa rahmatullah sama soppeek sama am di jàmm yëpp maa leen siyaare baax di leen jox seen wàccuwaay. di leen jéggalu nag ndax wax dëgg yàlla bu ma sañoon chaque jour dama leen di bégal danaa def sama carrière ba mu jeex te kenn du ci dégg la naqar yi. waaye jaam ak pexem yàlla ak dogalam maa ngi leen di siyaare baax di jéggul dama ne woon sax jërul ma koy wax kenn waaye nag ndagam daa àgg fenn fi moom naa leen ko wax rek ba lu ci waay dégg xam ne nii la deme dëgg yàlla maa ngi jéggul ñëpp bi ma yëkkatee moo di yaay jee bi foofu benn ngénte bi ma demoon la démb garab googu garab gi ma toog ne gis ngeen ko garab ga naat la wax dëgg yàlla bu sedd guy falaa ko doon yëkkatee waaye borom kër ga daa dem ci sàndarma bi ndindi boobu daal ne ko euh, garab ga dafa ruus dafa ruus daal maanaam garab ga dafa ruus ba jeex takk xam naa sama noonu fa jaar rek ndax man wax dëgg yàlla euh, jàng njàng ma sa yàggut wax dëgg yàlla bay ruusalu garab waaye nag nit moom fépp fooy doxee rek am nga ay noonu waaw ndax am na booy bu ma dégg xaw ma njaay loolu xamuma Ndiaye Lo mu naan mbay duñ la may nga jàng Modou yaay jeeb bi moom rek mën na faa jaar felet garab ga mën na koo felet ba pare ne man miilo waaye nag yàlla baax na suba daal laa war a dem gendarmerie mbindi boobu leeral leen lépp maa ngi jéggulu ñëpp nag maa ngi jéggulu ñëpp jërë ngeen jëf barke sëriñ Bamba dama naan dëkk dëkk xel la yomb yomb xel la waaye mese leen jeexal de boo nee mes da nga noppal sa bopp noppal ñu lay dàq noppal say bokk ngottub avion wuti na ngottub kàkk targu faj gars yi kàkk targu faxa ji leen gën a gaaw Serigne Khadim Lo gaydeel baram daam baram baxdaat ku ko xam-xam ne guddi gàmm moom Cees la ko defe ca baxdaat barkeb Serigne Touba sangub Serigne Mamoun Lo aa ah, Cees daal gàmmo gi moom lëfër lëfër jeeg daraas daraas jeeg ŋaatar ŋaatar ji baxdaat rek Cees ku fa dem da gis njàngam alxuraan mu wér jàngum xasida mu wér salaatu alal nabi ju wér ah bernde ba sa sedd guy guy guy guy lay doon guddi gàmma kay cees rek cees rek man maa nga cees soxna Bali Muntaxa soxna Bali moom sëriñ Soybu moom sëriñ Muntaxa baram waañ wa ca darul mu nem baram waañ waa ngoog koo xam-xam ko ak sëriñ Maamun Loo gaynde ma ni xalaf xalaf jaa nga cees looloo wér ki ma ko teg du ki ma ko teg ceddo murit saade laa ko teg ah mooma saade mooma de waaye sëñ ceddo yow loolu dugal ci nii nga fotowoo tey ah daaw fotowoo nii ku la dugal ci yow dox nga dem nga Paris dem fépp Kar Masala yow ku la dugal ci fotow yi ah lii Ibra ki yee ko ci dugal Euh, Mame Mbaye Guèye koy dugal ci photo yii moo ko naan photo woon nii jàpp na la mooma moom la moom la mais nit boo koy digal nga ne ko photo woon photo nii di ko ko digal wala Ibrahima boo demee sëñ Ibrahima Guèye sax ko ci dugal ndax moom fan yi am na erreur da col gu mag xam naa daa bëgg a fayu ci moom ah ceeb da tey daanu nga tey tey non tey kay nag wuy ma lenn nag laa lay ñaan kaw lax moom li def ci gàmmo gi bu fa jaar mën na noo taq ci yow dañuy taq ci yow dañuy tàq ci yow te fii ak gàmm mënu laa lijjën dana jàpp bul jaar Kawlax waaye njëmput gi dee tax njëmput gi da mën na koo dimbali ñu xam daa am heurel de col njëmput gi waaye bu toon njëmput gi boo jaaree Kawlax ñu tàq ci yow mu yéen ah tey ceddo da wuy ma mun koy da ngay su fexee wàññi ndànk na bu fekkee soriwoo nga wàññi ko ndànk ñu changer la ah? ba et puis ni nga foto woon nii daal ma jaaxal ma nii nii daal loolu moo ma jaaxal lool a wàcc loosu tuuti ceddu nag maam mbay géey lay dugal ci waxoon naa la ko dalay surxal irman <coughs> léegi xool su ma nee action xool yow boo pelee foofu dama naan bis wu ni kene wane sénémére gay xanaa ba kii neme sénémére ci yàlla way wii way wii xew nan ci bañ a wax maanaam balaa bësu way wee jeex Sénégal bari doom wayuñaa sem semile semelenge ji ji semelenge ji ji semelenge ji gi gaa yi xewal di sotti comme ndox ak tëb <laughs> barkeb Sëriñ Bamba balaa jeex senegal dana bari dof dana dana rëngatu wax leen ti way wii ñu arrêté way wi baax na maas maas maas xaw ma dangaa for kalpeb jula xaw ma dangaa for kalpeb ku moodu moodu bu doon dellu xaw ma dangaa for eh, ngise yi emprunté Mbàkke Tuubaa yi di yor xaw ma danga cee for xaw ma waaye fan yaa ngi solo di simmiku ko rek na lu tooy xam nag yàggut lu tooy xam yàggut doxal rek temps yi da solo ko simmi ko yorob xaalis am na xaalis bu ne fan yi damaa ragal ne yaako for de maas maas bu fekkee yaa ko for teel a la wax lu leer ñu lijjanti bu coow amee ñu fay ko ndax sama rak nga sama xar mi gis nga temps yi ni nga leere ah di solo di simmi ko ah, doxal bàyyi maag li ma doon teewaat nangu lu doo sonn soo xol du jeex waawaaw ku bañ li yàlla dogale waawaaw sonn di jaaxle dëkk bi day dëkkub jàmbur nag boo xam ne ba muy jëm ci yàlla de xalaat ci yàlla yàlla jaral ko lu ne kenn da koo tëlutoon booba ku dul moom kenn gënu koo xam yàlla kenn gënu koo xam sharia kenn gënu koo xam xaqiqa ba noppi mu raw ci ñëpp kon nag diisu man lu dul di sàmm li nga xam ne moom la ñu batale am na nag ñu mel ne def leen a desee doy waaye kon nag lii ngor mooy ku li Sëriñ Tuubaa indi doyut dëkkam bii nag waroo fee ne ngay dem ca sa dëkkub cosaan ba nga ba nga fekk baax ndegam am ko cosaan nga dem fa nag woote fa la nga fay woote ba xam kenn dana la fa fekkam déet wala nga def ni sëñ Touba defoon dem ci digg màndik mu dara nekkul nga andi yow dong di gor ak aka aka aka dajale ka mbaar woote fa la ngay woote ba xam kenn dana la fa fekkam déet ci murit laa judd samay jur judd ci murit waaw damay wax ne tey man am na loo xam ne su ma su ma doon liggéeyal yàlla di xëy di di jaamu yàlla ba guddi may fanaane jaam yàlla mënuma koo fay suñu muy boole gi ma boole ci njabootu Serigne Touba. Touba te nag dañoo fier ci doon gi doon taalibe Sëriñ Touba te jomb nañu sax nag doon taalibe Sëriñ Touba kon ñun amuñu lu gën a kawe doon taalibe Sëriñ Touba waaye. waaw kii du mbay Sapa Sapa waa waaw Mbaye xa foo génne ni ci may ga génne ci may ga daa daa dara. Ah, lekkoo fi dara. Ah, dama ko doon nuyu rek day sama wóllare rek may ga bii. Mbaye pourtant booy bi génne fi nee na gis na la ngay nekk. waxut dëgg day sama wóllare ma doon ko nuyu man may gay tàggoon maa ngi ah Mbaye mbay am na loo waxoon ci may ga de. d' ah? am na loo waxoon ci may de. dan maa ko la rek. muy ah, bu baax. mbay am yi juddu ci ginnaaw mbay. gisunu mbay ta mbay lanu gëm koote waxal mu naan na mbay. loolu yàlla ko ko jagaleel. xale yi juddu ci ginnaaw mbay. ci mbay te mbay lanu gëm koo ci waxal mu naan la mbay loolu yàlla ko ko jagaleel ah loolu nag sama soppe yi Serigne Babacar Sy laa koy may ku ci mel ni Asiti ku ci mel ni Pape Ñang ci waawoon sama gaay yooyu yëpp ñoom lay may air boobu ndeysaan samay xarit leen sama soppe leen bëgg ma lool di ma bégge ci TikTok beeg Instagram beeg Facebook beeg youtube beeg lépp barke Serigne Touba Mbacke ay Serigne Babacar yàlla na nu na ko yàlla fayal Modou Yaajo ñibil sa kër baay këram nga dëñëw a nga ñëwan Modou sa kër baay këram nga dëñëw a nga ñëwan